ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci loolu la ñuy jaaree di nuyu mboolem xalifa généraux yi si jiital sunu xalifa Seydi Aboubacar Sy ibnu Cheikh Seyd Mouhamadul Mansour di ko ñaanal yàlla na yàlla guddal fanam te yokku ko moom mbooleem njabootu Cheikh Seyd Alhaaji Malick ci barke Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla woyofal ko yan te ay ganuñu ko ba mu raw ay maamam ay baayam ay fan di ziar rek baax a baax a baax mbokk yi dina wax ne tey nag spécial def ànd seeg oustaz Babacar Babacar Fall ci xam-xam beeg yar bi waaye duñ ca yam dinañ ca ànd ak ñi nga xamante ne ñoom ñoo yor ba tey ànd seeg Alioune Badara Alioune Badara Diop ñu ko xam ci Baye Baye Donde duñ ànd seeg Alhaji Maguette Diop ñu gën ci Petit ñu ànd yor programme bi tey noonu lay wéyee ñu àndandoo ba nag di ko feete di wax ne ñëpp nañ ci bàyyi xel bu baax a baax foofu la ñuy jaar di nuyu. sunu caméraman yi bu baax a baax di leen ziar di wax ne alaaji Babacar alaaji Badara la ñuy jox mu ubbil Babacar bu ko defee ñu bëggalante si Seydina Mohamed bëggalante si Cheikh Seydi El Hadji Malick Sy Babacar bisimilah. مجاوب السعيد للأسناء لماذا يميلكم ودمتم تركني فمفتحر بمفتحرين ينادي يضعف دفعه في كل هين وعام ثم سهر ثم يوم أتى فيه الهدى حين قروني سرور في سرور في سرور يضاعف دفوه في كل حين وعام ثم سهر ثم يوم أتى فيه الهدى حرب القرون ومولد بي سرف وعير ففي تعظيم إن جاء السجون على سرور الملوك لحد فول ونجم الكفر ذو نفس مين سبيعك بدر لي بل أنت أنور ويهك من ماء الملاء هتئان تعالوا فيا زينة الدنيا ويا غاية المنى فمن ذا الذي عن حسن وجهك يبصر فالشمس ككافر والرمح كأنبر وقمس حياة وضاهك جوهر فما ولدت حواء من سلب آدم ولا من جنان خلد مثلك آخر سراتيف من يا أخي قد هوى به قلب في الهوى

حبيبي حلوة

Nazara macha allah macha allah yaakaar naa xol yëpp sedd na ci seen alim ñu baax baax si leer na te teg na ko ci mbay ak xaj mbay doone yal na yàlla wéral sa baat yal na yàlla yokk la ni aw yoon ah foofu la ñuy jaay nag di nuyu suñu jigéen soxna Ayda Diaw xam naa moom fa mu nekk xolam sedd na waaw ndax moom Cheikh Seydil Hadji Malick si lay bëggee Seydou Aboubacar moo dee ci xol ba waaye nee naa plateau bi tey moom macha allah ndax euh, oustaz Aboubacar nekk bi wala waxtaanee Seydina Mouhamed Alioune Badara yaakaar naa loolu pour mu doy sa xel ah xamul ndax dañuy jox Aboubacar mu ubbi. Petit Diop soo ko accompagne wala dañuy jox Petit Diop mu accompagné ko soo ko ubbil euh, oustaz bi loolu daal mi ngi dépendre si ñoom ñaar waaw ndax ñaari xaaja fi daje waaye loolu comme que ñoom ñaar seen mbir la ñoom ñaar laay jox rek ñu xool nañ kay defee ndax ñoom ñaar fa ñuy jubee ñoom ñaar xam nañ ko ñu jox oustaz Babacar Babacar Fall mu wax waxtaanoon ñu si Seydouna Mohamed wax ñu si ngëneel yi nekk yi ci bisu tay bi waaw ndax ngëneel yu bëree bëree bëree bëree bëri mi ci waaye yàlla nañu yàlla defal jàmm may ñu fekkee at yu bëri wax naa ne abu Aboubacar la ko booleeg Seydina Mohamed lu yaatoo yaatu la waaye Seydou Aboubacar la ko booleeg Seex Seydil Xaaji Maalik Si loolu lu yaatoo la. xëy na bis bu ko yàlla émission wax diggante Seydou Aboubacar na mu mel ak Seydina Mohamed ak si ni mu mel ak Seex Seydil Xaaji Maalik Si loolu moom du ñàkk bés dinañ ca waxtaan. waaw dama xamul tay lay doon bu fi xaje am beneen yoon ñu def ko waaye ñu jox oustaz mu duggal ñu ci Seydina muhammad duggal ñu ci bis bi bisimilah oustaz bismillahi irrahmani irrahim alhamdu lillahi rabbil alamin الحمد لله الذي سلك بأحبابه سواء السبيل ووفقهم لمرضاته فنالوا جزاء الجزيل الذي قص نبينا صلى الله عليه وسلم بالتقدم على صادق الأنبياء والمرسلين على مظهر لطف الله وعين الرحمة وأشرف الخلق وأكرم الرسل صاحب الشفاعة الكبرى والحوض المورود ولواء المحمود سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين بكي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نجي نجي نجي نجي زيارة نجي فتبارك الله نجي حالي مارا ممي غا خمانتني موي بريزانت اميشوي في تي طاها تي في نيانو الكو يالله يالله كو يالله دولي دقرل وي نجي تكوك تسيدنا محمد غا خمانتني لي نجي دف عبادة جامو يالله فمدحه عبادة ليني دف مومك يرس كروس دي أستغفر الله نيويم مومك تخاو سي جماعي دي نافلة نيويم نفمت هو عبادته صلى الله عليه وسلم دي كنت جام يا الله واي وحبه سعادة بك سيدنا محمد تحيح يقول لك بك يوم القيامة بك سيدنا فائزيني فائزوني بك سيدنا تحيح بكل سيدنا محمد نحمختني تحبي في قلب أحد إلا وحرم الله جسده من النار أم البن خلبا خمتني داي جاسو بق سيدنا محمد ألا جب يا الله تعالى سفر أم من وحبه سعادة بق سيدنا محمد تهلا وهي وزيره زيادة لتبسي سيدنا محمد دلنتلا waaw mënoo bàkk Seydina Muhammad di bàkk ki fi gën ba pare doyee déedéet mënta ne kon nag ñu ngi leen di beral nuyoo bu baax fa tabarakallahu ziyaara leen ñaareel leen yàlla ak suñu caméraman yi fa tabarakallahu nga xamante ni jën gisu leen waaye liggéey bi yëpp ñoom la fa tabarakallahu xaj maanaam bis bu màgg ni muy bisu Iid nga xamante ni ci ay fan yu tedd lañ jógee fan yu màgg lañ jógee muy ay fan weeru koor nga xamante ni yàlla daf ko def pour laabal suñu jëmm yi laabal suñu jukko yi laabal suñu xol yi waaye laabal yaram yi itam ndax su mu tasixu nabi nee na wóor leen ngir wér waaye laabal tamit suñu xol yi ci bàkkaar ñu tëjee ko nag benn jour wa xadamahu bi yawmi zinati wa surur li yatuuba ala man yatuub weeru koor yëpp nag yàlla jeexalee ko ci benn bés nga xamante ni bisu mbégte la bisu taar la lu tax mu def loolu mu ngi li yatuuba ala man yatuub pour gars yi gaawantu gaaw tuub jéggalu yàlla yëgoon yi xaj Bachir féeg yint yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu ngi nekk suñu biir yàlla bi nu mbugal kon bis bii bisu tuub la fekk nabi mu ngi nekk suñu biir bi nu mbugal wa maa kaana allahu li yuazibuhum wa anta fiihim yàlla nee na ko yow sayyiduna muhammad feeg yaa ngi nekk ci adduna di existe du dund sa xeet du ma leen mbugal yeneen ci bi jëli nag ñaa yàlla bu may dund la wax te alquran annoncé woon na ma ni innaka mayitun وإنهم ميتون ثم إلى ربكم ترجعون yàlla waxoon na ma yow sayyiduna Muhammad bis dina jot dañ fiy jóge naka mayitun waaye saxaaba yi sa ginnaaw ak gaa yi la wër mayituuna ñoom itamit dañuy génn àdduna summa ilaa rabbikum turja'uuna ñoom ñëpp nag yàlla dinaa leen dajale benn bërëb kenn ku nekk li nga nekkee woon ci àdduna ma fay la bu fekkee baax. ma fay la ko waaye bu fekkee lobal itam ma fay la ko yonent bi xam ne dafay jóge mu ne ko kon yàlla bu ma fi jógee kon da ngay alak sama xeet bi mu ne ko déedéet ma kaana allahu li yazibuhum wa anta fihim ma kaana allahu li yazibuhum wa hum yastaghfirun boo fi jógee ne fekk sa gars yi ñu ngi sant sa istighfar di jéggalu yàlla man yàlla ma jéggal leen nabi alhamdulilah kon bis bii bisu tuub la bisu كاتل يا الله صلى الله عليه وسلم حاج بشير حاج بشير كور دي جيخنا اور بي لا ني خام ناخ جامو يالا ني ديف نا افي تي نون ام دي اور بي لا نحن خام ناخ يالا واخون ناني لوتاخ ما فراتال تي لين كور بامو جيخ بور ген جيلي تي بن ريزولتا لعلكم تتقون تتقون بوبو اور بي بو فكيني دانيو تيكي كولي ساني xam nga Bachir koor gi gi moom macha allah nga xamante ni jigéen ñi muur bu jot lañ doon muur solin gi rafet tabarakallah boo gisee sax du ñàkk nga gis dara waaye maximum quatre-vingt-quinze pour cent moom tabarakallah waaye bu koor gi jeexee da ngay gis ñu sànni kol yi commencé waat ci sol yi sol yu bon yi. kon dinañ feeñ ci mbirum koor ñu jàngee ci dañ ci war a jugee am la ñu continuer. jërëjëf xaj Mara. yàlla dafa wax ne benn résultat ngeen ci amee muy ragal yàlla am kay li nga wax noonu la faaw mu am ay jikko yoo xamante ni dañ ko génnee dafa jugee ci yow ndax nga am nga jëlee ci lan résultat boobu ngay xamante ragal yàlla bu fekkee ni dafa koor bu pare koor gi jeex nga delluwaat si li ne nga nekkoon digal ni koor gi deful effet wóor ba pare tëjee ko ay dansin foo kaf ree mbokk yi dafa jot sëkk ñu delluwaat suñu xel ci yàlla yàlla binduñu pour ci àdduna ñiy kaf foo reetaan kese pagaay dafa xasibtum annama xalaqnaakum abasa wa annakum ilaynaa laa turja'uun yàlla nee na dox doomu aadama ndax da ngeen foog ni man yàlla dama leen bind yi ngeen kaf ak foog ak ree rek di pagaay lekk ak naan wa annakum ilaynaa laa turja'uun ndax da ngeen foog ni bis du jot ngeen ñëwaat fii ci àdduna ci àllaaxira kon nañ delluwaat suñu xel yi ci yàlla muurum koor baa ngi nii itam lu tax mu am rek pour sellal suñu alal rek a tax bañ bis bii kenn taxaw di laaj moo tax salaay salaam farataal ko si bëgg na bis bii kenn benn miskiin bu mu taxaw di laaj kenn ku nekk na jàpp ni bis bii sa bis la moo tax bu ñëpp doon joxe azaka kama wajaba nu mu waree ak maanaam laaj dina néew trop du ma ni kenn laaj waaye laaj dina néew trop. jamono ji ñu fi gën a bëgg alal gën fi am xaalis ñoom du ñu génne azaka buñ doon génne azaka nga xam ne nag daanu dañu géew donte ne daanu dañu géew waaye dina matale waaw kon azaka yi nañ ko génnee lu taxoon rek pour yërëm. fukaraaw yi miskin yi moom nabi sallallahu alayhi wasallam daan na def bu génnaan si jumaayam bu tedd gi ñu julli gay ba pare mu taxaw si buntu jumaa ji ne Aboubacar mu ne ko labbayka ko jëlal li nga àttan maanaam jëlal ci mbooloo bi li nga àttan yóbbu ko seen kër nga teral leen Omar seen Omar jëlal li nga àttan yóbbu sa kër nga teral leen Ousmane kazalika Ali kazalika mbooloo bu des nag mu ni yéen topp leen ma sallallahu alayhi wa sallam moo tax alaaji maa ni ba muy wax dafa ni moom nabi daanu woon lekk moom kese ma kaana yakulu xayrul xalqi munfaridan li anna zalika fii mu nekk si wal bare bu gaay yi daan ñëwee këram loxo yi daanul woon jël bool di ko bett te lu ko nekk moom sallallahu alayhi wa sallam هاي ما رام أفضل من دبلون لون سوين لخو أي كسرة الأي خلاص لقى يبي بي إنما هذا وعش الهادي على الضفافين أنا أجمع لي الضفافين بيقول لي لون ده من أي كسرة الأي يلا يلا مفاي المسيا الحياة باي دعما يوم لقى على جمال سرمه ولا ما دخلنا دبل بتي dama naan ñu jox koy jóg mu wax lan la Cheikh Seydi El Hadji Malick Sy wala lan lañ wax Cheikh Seydi El Hadji Malick Sy hakaza wala lu Cheikh Seydi El Hadji Malick Sy wax Seydina Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam ndax jàngale nga ne Seydina Mouhamed ko doon partagé mhm. te gis nañ ne lu néew la ci jamono ji ñu nekk lu néew la partagé ci jamono ji ñu nekk waaye du fi jóg Seydina Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam du fi jóg ñu lay laaj lan la Mouhamadul Mansour wax si Seydina Mouhamed wala lu Mouhamadul Mansour wax si Seydal Hadji Malick si à travers si partagé waaw ndax euh, yeneen bi sallallahu alayhi comme ni ko oustaz Babacar Fall waxee ne ku njaboote woon la waaye euh, na Mame Mansour waxoon rek yamunu bila mel ni wa yamsil maasiya ah loolu am solo la si jàngale bi jox xaaji fa di jow mu ubbil oustaz ci Mame Mansour من ذكر شيخ عالم متورق ذكر دوم سيح الحاج مالك الحاج منصور بايو خليفة بي سيد بابا كرسي محمد المنصور أطال الله عمره وأيده ونصره بداية تها عليه السلام من ذكر شيخ عالم متورق الحاج منصور برم ناري كالي برم تودر جلالتي sabran xalbukum salima yaa mujibal qawmi soodin wal bayaatin mooy joobe bàyyam Seex Sidil Hajji Maalik min zikri seyxin aalimin mutawarriin ki nga xamante ni dundam gi yëpp jaamam yàlla la maam Ablaye nee na ko yow Alaaji Mansuur xool naa ba xool waaye gisuma ku la ëpp martaba si yàlla yow daal li nga am jagleel yàlla la. inaayatullaahi yaa Mansuur qad zaharat bi laa taloon ak fii comme duna kitmaani alaaji Mansour yow li nga am jagleel yàlla la xool naa góoru yàlla yëpp yëpp waaye xool naa ni kenn ëpp la martaba ci yàlla بارز بين منصور سنان من ذكر سيق العالم متوارع moo tax nit yàlla ba ni xool naa nit yàlla yi xool leen vérifié leen waaye alhamdulilah maa ngi sant yàlla min cheikhin si sëriñ boo xamante ni ñeel na ko rutabun martaba waaye maa fawqahu rutabun min indi rahmani amul kenn ku ko ëpp martaba ci yàlla moom alaaji Mansour ma Mansour nee na min zikri cheikhin alimin mutawarriin min zikri cheikhin سيفاتلو كسرين بو حمانتاني عالمين كبري خم خم لا مم على جمالي وين خم خم جدي بري ورعون كسامولا مم على جمالي موتا عالم اك ورعين بو كبقي دمال سي سيتيم كار باي سري بابا كرسي باي على منصور مم مم دادي لنياري يوي خيران الانام الى الهدى بعناني خادم ويومك moom alaaji Maalik al anaama mbindeef bi fan la leen di jëmee ilal hudaa jëma leen ci njub alaaji Maalik mooy woma taaliba yi jëmale leen ci njub ndax njub googu yàlla ma ko wax wa anna haza siraatul mustaqim fattabiuhu wala tattabiu subula fatafaraqa an sabili yoon baa ngi nii mu yóolu sayyidina Muhammad alaaji Maalik woote jëmale si yoonu yéen ci Allah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam matu nee na seyxun ki may wax sëriñ la تقيم ragal yàlla gi foo ko natt weesu na ko. laa yuxalu bi riibatin. amul benn sikk bu ñu jamee moom Alaaji Maalik. ala istiqaamati bi ilaahi muaani. moom moo taxawal sunna ala istiqaamati bi ilaahi muaani istiqaama mooy mooy lan sax su njub bañ ko wàccati boo ko bëggee gis jàppal Alaaji Maalik. aynu shariati. jëmmi sharia mooy Alaaji Maalik. wal xaqiqati. xaqiqa bu doon jëmm jàppal ni jëmmam ci mooy Alaaji Maalik. inna nekk jëmm ji mooy am. indi mooy li qaala si adlaani. dëggal moom alaaji Maalik yahdi dafay gindi dafay orienté. al muriid taalibe bi fan la ko jëmalee bi xaalisil daf koy jëmalee gën di sell diine moom alaaji Maalik. saami maqaami. alxaaji Maalik maqaamaam yu kawe mi saamil maqaami ku kawe la maqaama moom alaaji Maalik وعمدة العلماء بر وعمدة العلماء moom mooy kenooy borom xam-xam yi borom kono kooku mooy Cheikh Sidi El Hadji Malick Baye Serigne Baba تاج العلا كما يعقل الحملاني تاج العلا taaj taaj mooy mbaxane mbaxane taajul ola mbaxane dafa faatu baaxoo ci kaw alaaji malik tajul ola mom moy mbaxane kawe wa kamaatalal xamaraani qamaran mom mo gëna kawe ñaari biddew yooyu ñu naan azal ak ramex li ñi kawe kawe ci yàlla alaaji malik mo le gëna kawe te Seydil Hadji فلا بد من سكوى الى الله كربتي ديغال الاج مالك ليبم طرح نبوم سوف سوف يقول تيجون دي سوف سوف الوقت وقتلو إن التواضع من حسال المتقي ويو به التقي إلى معالي التقي مني إن التواضع من سوف سوف الوقت وقت ترخلو ترخلو من خصال المتقي ديكوي كرجل يالله ويو به التقي إلى معالي التقي ويسرق يالله سرق يالله دلوقتي أي مرتبة بيكوي لا بد من شكوى إلى الله كربتي على إبال فلا بد من تنك فأو أم من شكوى ما توكل توكسي ilallaay ci yàlla lan ka tey tawat kurbati sama jàkka fa maa li xayrallahi jaamilu kasrati ndax wóor na ma ni keneen ku dul yàlla mun te jeg sama sama damm damm keneen ku dul yàlla mun te régler samay problème ak alaaji Malick waaxiyala baabal xayri ya rabbi lam yufiid waa xaraya fëgg beneen bunt baabal nga bunt keneen yaa rabbi yow sama borom lam yufiid loolu du jëriñ التي xam bi ma xam loolu moo tax ma wëlbatiku ñëw si sa bungu bu buntu bu tedd jub si la nga xam ne yow yaa ni ni astajib lakum ñaan leen man yàlla ma may leen fadakari yow yàlla ku tedd nga fadakari yow yàlla ku mag nga fadakari mu mani tëja yow إلى بابي يا من على كل نعمتي شبكو خمانتني نيو نسبنتو دفتوات ديكا ياكار دينا وولو ببخيوال فأنت عليم يا صبور إما الجفا أنت يا يا الله حليم كل عندنا يا صبور إما الجفا يا صبور يوم يا كورغا خويا الله ساتي بدول ساتي بدول جرنا يا نعم moo tax yàlla mu ñàkkoon la yaa saburu li man jafa yow yaay mu ñàkkoon ñeel ki nga xamante ni ñoo ne dina beccangal falamaa bana ni ko wóoree nag fa xam ne am amul ma war yudayati. sa bunt. bi nga xamante ne sama ñaari loxo. ndax na ko sa tey siir ba. ashku ilallahi أشكو إلى الله جل سيرفع عاسبك يا رب وعنا يا الله يا الله أشكو إلى الله حاجة ليس

na mu daan dundee ak na nga seedal ak lan la seedal xaaji Maalik si wax ci Seydina Muhammad ndax wax nga ñu si seedal xaaji Maalik si waaye ba léegi waxaguñ ñu lu ñu wax ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu lay wax ne oustaz lan la seedal xaaji Maalik si jàngal ci Seydina Muhammad waaw jërëjëf xaaji Mara maam Seex al dundam ñëpp nga xamante تير بيد خلاص الذهب في سيرة خير العرب للعارفين بالله مولاي سحفيد الحلماني بمكي تعليف مغي ديكنا بتي سجنا واي لمم لبلوم تي دفرق لويرنا كل من تسيسي كدارا موتخ bunt bu nekk taggee na yéen yàlla taggee na ko yéen yàlla Muhammad sallallahu mu nekkee leer topp ko ba mu nekk liir ba keroog ñu koy suul bàmmeel ba keroog am ñu fa ko fàtte woon dallam sax alaaji Maali wax na leer boobu nag leer yàlla la waaw boo hum li ittifaa i nuuril xaaliqi tama boo la ma fasaa قمر الإسلام في المدينة على نبي وآله أتينا صلاة

لما فشا خبر الإسلام lu mu ci teg fii imami Seydi Alaaji Maalik yàlla na yàlla fayal góorgóorlu Cheikh mu ni woohum ñoom ñan waa Quraysh ijtamaa daje ne bëgg li itfaa i nuuril xaaliqi bëgg fay leeru aji bind ki dañuy sonn leeru yàlla nga ne danga koy fay safara buy tàkk sotti si matt safara yàlla a tàkk sotti si matt moo gën allahu nuuru samaawaati wal ardi te yàllaay leer gi masalu nuurihi ka miskaatin fiiha misbaahun misbaah fii zujaajatin zujaaja ka annahaa kawkabun durri يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يبيب ولو لم تمسسه نار النور على نور نار النور على نور نار النور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. Lamma Facha kañ la nga bëggoon fay mu ne Lamma Facha ah. ah ba siiwee xabaroon islam yi xabaru islam ba mu commencé am doole nga xamante ni commencé na am ampleur daje nañ nii dañuy fay leer yàlla gi lan si alaaj Malick teg jaaboo ila arti waaw hiiti man nay xam ne yii ngeen jëm ci bàyyi tëxam bàyyi tëxam mooy rakk bàyyi ñaata lan lañ fa ñëw si mu ni jii man jii ñaata la ñett ñëw leen ci bàyyi tëxam ñetti yoon li yax zulahu ngir gàcceel ko li yax zulahu ngir toroxal yéen yàlla Muhammad ngir wax ko ni sa doom ji mu ngi ñuy fitnaal ndax mu ngi tuutal suñu yàlla yi ñëw nañ mu ni yéen jaamu dara antum wa abaakum fi dalaalin mubiin ñoo mën a wax ni yéen ak seen bàyyi yéen a ngi nekk ci sànkute bu màgg ndax yéen yéenay jaamu xërëm yi waaw jaamu dikk nañ ilaa abdihi jëm ci bàyyi tax jii man waaw li yaxzulahu ngir mu gàcceel ko man yabai bayda anoxina àqila ñu la mi kuy sàkku nenu ñii nee rek baa fooñ picc la boo xamante ni wala ñenaaw la boo xamante ni nenam ak a jafe waaw kuy sàkku neen kooku alaaj Malick nee na nag danañ la waaw naa la wax leen gars yi nag dañoo defar benn embargo xalimara lu gàtt embargo embargo bi gars yi dañoo dajee ni ñii nga xamante ni ñooy siiwal islam ñu bind benn papier nit ñi ak ku gëm yéen Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam buñ ñëwatee si dëkk bi buñ leen yanati bu ñu jëndati si ñoom buñ leen jaayeeti bu ñu takk si ñoom soxna kenn bu mu takk si ñoom ñu jël kayi bi bind ko teg ko ca kaaba gi kaa moo ko dul maye waaye bu doon loolu ma leeral ko ñu jël benn kayit taf ko ci kaaba gi ñu lii daal ñu ànd a yéen ci yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa duñ leen defal lii ndax mbewte alaaji Malick nee na naa fooy ba la ca xew ah alaaji Malick nee na xam naa la ca xew wa baada ma xibta waju dagre mun basitan lana bi faydika wa taysiri asuruna tawlal jalalati سلما يا ولد الخوف هود والبياتين ما شاء الله ما شاء الله Oustaz kaddu yi leer na kaddu yi leer na kaddu yi leer na te yaakaar naa pël yëpp sedd na yaakaar naa ne li ñu mayoon ci temps moom moo ñu xaw a tënk waaye buñ ko bëggoon développé tey yaakaar naa ne fanaan dinañ fi fekk waaye yàlla xëy xëy na du fi yam te incha allahu rabbi du fi yam dinañu wut yeneen bés yoo xamante day nekk spécial boo xamante ne dinañ jàngale Cheikh Seydi El Hadji Malick Sy donc mbaa ñu waxtaan si Seydina Mohamed xëy na nag du ndax ñoom ñaar seen mbir dëppoo woon na waaye ñu jaaree fa di nuyoo suñu benn Seyda muy Seyda Nafisatu yor daara fee si biir xotaan ku baax la mi jàppale diine. waaw internat ba yor foofu di ko ziar bu baax a baax di ko ñaanal yàlla na ko yàlla jàppale ca ndaw yom yor foofu Alioune Badara xol yi sedd na macha allah di wax ne yàlla na ñu yàlla may beneen ndaje ci barke yonent bi sallallahu alayhi wasallam lépp lu ñu jaamu ci weeru koor gi yàlla ñu ko yàlla nangul lépp lu ci ndog ndog yàlla na ñu ko yàlla jéggal ci barke alquran yàlla bu kenn yàqu yàlla bu kenn yàqule ci barke yonent bi ci barki weeru koor yi ñu génn ah ñu jox oustaz nee na def tàggoo am ñu mu ziar bu ko defee ñoom petit Diop ñu ñaanal leen de ba beneen yoon bu soobee yàlla ñu def ko du di leen wax ne Taha TV du yem ak fii ak yéen def ay émission si fan yu néew ànd ay oustaz dina am ay bés yoo xamante ne dañuy jàngale xilaasu zahab kese waaw ak bindu Cheikh Seydal Hadji Malick Sy wax naa ko am na oustaz boo xamante ndax fan yi bëri na coow ci wàllu sëy macha allah di nuyu sunu yaay Rama ñu ngi koy ziar bu baax a baax bu baax la bokk ci daayira imaani wala ixaay yàlla na yàlla defal jàmm ñoom ak sunu yaay ya fa nekk yëpp ñoom maire Aïda Diallo ñoom ñëpp ñu ngi leen di bëggee bu baax a baax asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu jox oustaz mu nuyoo tàggoo tàggoo budul tàggoo waaw oustaz ok tabarakallahu xaj maara jërëjëf jazakallahu ya yal na yàlla barkeel yal na fay yiw kontaan bu baax ci ñëw fii ñu ñëw ci Paxa TV ànd koog suñu mbokk-mbokk yi nag lii tey boolewuñu de ñu yàgg nañ tabarakallahu yal na yàlla barkeel euh, sant bu baax suñuy kilifa Serigne Mara Fall ziyaare ko bu baax ñaanal ko waaw tabarakallahu suñu kilifa ci dal bi ci oyof bi fa tabaarakallaahu ak soxnaam mama dem Fall waaye nuyu suñu kilifa Baba Siré yére bii ma sol sañse bi ma sañse moo fi génn te eh, damaa xaw a nduróom sax alaaji Petit ak ak ak ak Doudou Kende eh. fa tabaarakallaahu ñaanal leen yàlla yàlla yàlla taxaw baax ak seen soxna ñoom Amina ñëpp rek fa tabaarakallaahu yàlla yàlla barkeel Haji Bachir ak ñi ko ànd ak ñëpp xam ne ñun ñoo bokk lépp fa tabaarakallaahu ah sama gars yi ñun ñëpp ñoom Mame Abdou ak ñëpp rek in illal illa al islaha mastata'tu di baal ñëpp ak ah, di baal ñëpp ak yal nañ yàlla boole baal ñu teewee ko ay déwén yu bëri bëri bëri taala wabarakatuh Abonin partai partageel te na nga